waaw dama bëgg euh, vraiment euh, dagal xel yi wax ni que ajjuma la société bi gérer affaire pétrole bi ci aéroport bi wax ni que euh, mercredi carburant bi manam dootul amati ci biir aéroport ñu wax leen ni rek bi ñu ko yëgee déjà ñun commencé nañu ci liggéey parce que ñun suñu rôle mooy fexe ba teq-teq problème bañ am ci secteur

Euh, carburant ba ngeen di ñew koku mesure bu njëkk bu ñu jël euh, teewul euh, tey ci bëss bi dinañu continuer di waxtaan ak wa ministère de l'énergie waxtaan ak SMKD bi nga xam mom moy responsable fourniture kérosène bi ci ci avion yi au niveau de AIBD waxtaan ak wa société AIBD ak compagnie ñun ñëpp dinañ tok tey waxtaan pour xool nu ñuy fexé ba régler problème bi.